man li ma jaaxal mooy Pape doguma la mhm. am na question boo ko bëgg a laaj mais xam naa doo nangu ma laaj ko ko mais bon juste rek pour ñu leeral <laughs> sànq maa koy junj nee man su ma nekkoon ci gouvernement du ma jël ñaari département mhm. mu di euh, culture ak jeunesse artistes dañoo bari wax ñu baal ma ci laa bokk ndaw ñi dañoo bari problème mhm. benn mooy moom lu tax mu accepté ko ndax mooy lu mu laaj la beneen bi topp mooy te bu fekkee du lu mu laaj dañ ko ko proposé bi mu bi ñu nekkoo da ngay jiite ndaw ni c'est-à-dire ban yëg-yëg la am ndax déjà dafa toog rek coow li commencé jàng naam jàngul nii la melam naa la mel mhm. ban yëg-yëg la am ñaar yooyu bëggoon naa mu xam ko mhm. ndax mooy moo ko tànn bu fekkee tànn ko bi ñu ko ko joxee lu mu yëg gis nga Mouhamed service sama réew bu dee sang gaynde sax dama ciy d'accord ànd ci ndax xam naa ni ka ma ko jox dina ci accompagner ay garde fou yu nga xamante ne nii dina ma sauver dooleel mhm. ndax nag euh, réew mi ni muy rëy rëy rëy rëy Euh, ñii nga xamante ni ñoom nañuy fal ministre bariwuñu mhm. kon président Macky bu jëlee confiance am def ko ci yow nga xamante ni euh, ëppoo nit ñi engagement ëppoo leen jàng mhm. ëppoo leen xam-xam mhm. ëppoo leen dara ñu tànn la yow boo def la ci ñi nga xamante ni ñooy décider euh, avenir u réew mi loolu honneur la. département bi daa bari coow. waaw mais Mame Mbaye ñaa xam na ci dara. Mm. Euh, keneen ki ndong euh, waa ji. Pape Góor bu bari coow te lu ko jur sax am na am na am na am na yow yaa ngi fiy wax ministre fi bon ay cybercafé am na mm. ministre ci wàdd ko xam ne moom ay mbaam la fi proposé woon. Mm. donc lu ne gis nañ ko. ku nekk ak sa donc day département bu bari coow. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, da nit ku mën a dékk coow pour bi rek moo laaj la rek du dara yi kii bu mujj bi moom dindi ko parce que bëgg dugg ci gouvernement bi moom euh, defe naa ni ku nekk am nga ambition pour defal euh, jàppale sa réew mhm. que mu nekk ci gouvernement wala mu nekk feneen mhm. kon kuñ ci dugal rek dañ la jox honneur jox la sas bu ñu ma ci jox dama koy liggéey def bay ci sama waar ba mu mat sëkk ndax xam naa ni kii ma àndal jar na àndal jar na jàppale ci liggéey bi nga xamante ni moom la ko population bi sas kon awma ci benn problème awma ci benn lu may ragal te nag géejawaay laa dëkk. surtout que yow post bi nga xamante ne moom nga nekkoon sept ans PCA soo mm-hmm. su nekkee dama juum nga rectifier ma. Mm-hmm. moo nekkoon sa premier poste nga pareti ñu jox la ministère. waaw am na ñoo xamante ne dañuy tëb ñu jox leen ministère. xam nga man def naa sept ans mm-hmm. conseil d' administration. conseil d' administration mu nekk sa premier poste. moo nekk sama premier poste dans l' état. kon euh, bay naa ci sama war ou mooy am naa expérience su sept ans bu nga xamante nii am naa ko ci état ci gestion loo nga xamante ni mooy mbirum mbiru réew mi bii waruma mën a jaaxal te jàpp naa ni bi ñu fi toogee ba tey ñu ngi bay suñu waar ñu ngi ciy def li nga xamante ne ni moom nañu sant également tourisme parce que technicienne supérieure nga en tourisme waaw euh, tourisme defe naa ne fu waay nekk rek war nga ci mën a bay sa waar mhm. euh, tourisme ki fa nekk mi ngi def liggéeyam normalement feneen ak feneen keneen ak keneen ce n'est pas parce que kii ñu ngi sàngante sutura man moo metti a waaw solidarité gouvernementale nekk tourisme sànq bi mu ne seen rek yéen ñaar ñu yëngoo ñu taxaw na ñoo yëngu ah solidarité ah de corps alors ah bu dee loolu moom nangul naa ko mais ñi dama leen a fekk ngeen di ñaxtu ci seen kër gi dama leen a solidarité de corps c'est tout à fait normal et euh, on va retrouver maintenant internautes yi balaa ñuy enchaîner ak euh, dernière question yi euh, question politique la nara ak Néné Fatoumata ministre de la euh, jeunesse Mamadou Ndiaye bi ñu tàmbalee ak léegi internautes yaa ngi réagir ak hashtag bi di déclic ak hashtag bi di déclic wala déclic TFM muy Twitter di Facebook wala Instagram ci YouTube bi sax gis naa ay réaction question yi bari na mais vraiment gis naa internautes yi aussi ñu fi bari di féliciter ministre de la jeunesse madame Néné Fatoumata Tall réaction yi bari na en temps réel comme ni ñu leen koy waxee euh, télévision Futur Média da leen proposer li ñu duppee Social TV la dafay interactive seeni réaction dañ koy jot fii en temps réel am na benn question bi nga xamante ne nag lu ci bari gis nañ ni dafa ñëw ñëwaat moo tax ñu tànn ko muy euh, ñii dañoo laaj dugg ci moom ci ñoom mbirum euh, politique ñu ne à quand les du conseil national de la jeunesse dont le mandat est arrivé à terme depuis décembre 2019 maanaam euh, kañ la ñuy yëngatuwaat ci mbirum renouvellement du conseil national de la jeunesse bi nga xamante ni jàpp nañ ni mandat bi jeex na depuis décembre 2019 xam naa nag madame madame le ministre dina ci ñëw indi ci ay leeral waaw ah. Euh, c'est bon waaw voilà nan nga ko bëggee. muy ngay joxe par benn mu koy tontu. wala mën na tontu par benn mu tontu. pour gagner du temps voilà donc très rapidement mu tontu ci boobu conseil conseil de la jeunesse. c'est ça conseil national de la jeunesse. Ah, ah. Mm-hmm. voilà. Mm-hmm. waaw jërëjëf renouvellement CNJS comme niñ koy waxee. Euh, ñun dañoo ñëw fekk fi bureau boo xamante ni ñoom ñoo ko fal euh, démocratiquement fekk président boo xam ne ñoom ñoo ko fal démocratiquement seen mandat jeex na. Euh, dañuy créer les conditions de renouvellement rek parce que élection boo gis dafa am wàccaay mhm. élection conseil national de la jeunesse ku nekk ci réew mi rek xam nga ni du lu yomb doo xamante ni da ngay ñëw rek bëri def ko facilement en une semaine ou bien deux jours du noonu mhm. organisation la laaj concertation la laaj ñu xool ba xam naka nañ ciy demee s'il faut changer des textes ci lu ñu bëgg ñoom ñu dem ci ak ñoom te muy nekk lu ànd ak yoon loolu moo tax euh, renouvellement bi ñun amuñ ci benn problème bu préalable yi buñ ko réglé rek incha allah ñu dem ci on va entamer des concertations yoo xamante ñoom ñëpp ku ci nekk danga na joxe xalaatam pour ñu xool naka nañu demee ci ay élections mais ñu sóoraale période Covid bi parce que ñoom bu ñu dee dem renouvellement dañuy dem campagne. Mhm. te defe naa ni moment bi ñu nekk. jàpp ma ni propice na pour ñu pour ñu pour ñu dem campagne. et même euh, <laughs> oui, vivre avec le virus mais euh, ci mbir yu nga xamante ne ni euh, mënul ñàkk. Mhm. lii néew ma mënul ñàkk mais lu mën a xaar la maintenant néew ñu day xaar itam. Mhm. dañuy xool de quelle manière nañ koy defee naka nañ koy organiser bu fekkee dañ koy organiser ci biir Covid bi tamit beneen organisation bu bokkul ak yi nga xamante ni ñoo doon am moom la laaj mhm. kon loolu yëpp ay waxtaan moo koy indi ñun duñu tëb rek délibérément ne leen woy demain da ngeen di dem élection dañ koy waxtaanee ak ñoom amuñ ci benn problème boo xamante ni nii moom nañ ci am pour pour organiser leen ay élections. voilà donc réponse de euh, madame Néné Fatoumata Tall deuxième question. pour internaute question bi mbirum euh, liggéey la ndaw ñi ak ku wax ndaw moom dina xalaat liggéey. sànq mi ngi doon wax ne du ministre de l'emploi c'est bien <laughs> vrai mais est-ce que ñi ñoom dañuy laajte est-ce que yaa ngi gën a teg yoon euh, teg ndaw ñi ci ay yoon yi nga xam ne dinañ mën a am liggéey wala ñu am loo xamante ni vraiment dinañ ci suturlu. waaw euh, dëgg la li nga wax sànq yoruñu ministère de l'emploi mais la promotion de l'employabilité des jeunes. Mhm. dafa bokk ci suñu ay mission euh, ndaw ñi ñu ngi leen di accompagner au niveau de l'ANPEJ ku nekk xam na programme des domaines agricoles communautaires tamit c'est pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole des jeunes loolu yëpp loo xam ne ministère de la jeunesse boot na ko te programme bu ci nekk redynamiser nañ ko de sorte que actuellement euh, mën na indi ay lendemain meilleur pour la jeunesse sénégalaise. Mmh. Mmh. donc euh, euh, réponse Euh, une autre question Mamadou Ndiaye. du question kay moom kay dañuy ñi ci bari rek message yi dafa bari ñu ci bari di ko féliciter ci ay ndaw. Mhm. mais surtout challenge bi nga xam ne mu ngi koy def di takkal sa masque ci réseaux sociaux yi gis nañ ni sànq ba tey gars yi ngi sànni xeer. boobu challenge bu baax la quand même waaw. challenge bu baax la mhm. parce que loolu dina fet dina dina tax ñëpp di di sensibiliser surtout ci jumtukaay yu xaral yi nga xam ne gis nañ ni ndaw ñu bari ñu koy utiliser. Mhm. waa chaque jour ñu ne ñu wax nañ ne ndaw ñi nga xam ne ñoo utiliser Facebook ci Sénégal weesu na lu ëpp ñaari millions jeunes yi nga xam ne ñu ngi Euh, ku nekk ak sa smartphone yor di utiliser euh, réseau social bi di Facebook bari na ci ñi nga xamante ne actuellement ñi ngi ci Twitter ñu ci bari waxtaan yu responsable ay ndaw ñi nga xamante ni bokkuñu ci benn parti ay sénégalais lañ di jël ay initiative yu ni mel moo tax ñu ci bari tey jii hashtag bi nga xam ne takkal sa masque gis nañ ni euh, ndaw ñi ñu ngi koy suivre ci réseaux sociaux yi muy Twitter muy Facebook muy Instagram. wala yeneen euh, plateforme yi nga xamante ni dinañ gën a mën a jàllale lii di sensibilisation bi ngir fexe moytu feebar bi di Covid 19. voilà en tout cas elle est très sur les réseaux sociaux ñu ngi gis ay influenceurs yu bëri euh, yoo xam ne ni euh, ñu ngi ñuy wax ñu nuyul leen xaritu blogueurs yi xaritu. influenceurs yi xaritu ndaw ñi euh, di risiki di euh, nuyul ñu suñu ministre voilà c'est notre <laughs> ministre à nous euh, mooy ministre ndaw ñi mm-hmm. merci Mamadou Ndiaye pour question yooyu ak commentaire mm-hmm. yi ñuy seetlu sànq ba tey ci réseaux sociaux yi moo xam Twitter Instagram ba ci Facebook ak YouTube bi nga xamee ni am ngeen possibilité seetaan télévision Futur Média en direct puisque nous sommes une télé digitale on va enchaîner ak dernière partie bi ci ay question mu ngi jëm ci wàllu politique loolee xam naa dama koy bàyyeek naat Diatta Mamadou Mamed Ndiaye ki nga xam ne ni euh, moo di euh, Marie Louise ndax moom euh, militante première heure la bu APR sànq femme yi nekk fële ca Géejawaay mm. man sama laaj mooy jamono ji suñuy dëkkandoo xaw nañoo yëngu muy Côte d'Ivoire di Guinée ndax Alassane Ouattara daanaka waxoon na ni. ci présenté wu voilà moom waxoon na ko bu yàgg. ba tam jamono ji présidentielle bi octobre la dafay bokk. Mm. Alpha Condé moom dafa nekkoon dans le clair mm-hmm. ba léegi te euh, fii tamit euh, ci président Macky Sall tamit dafa mel ni ba léegi leerul parce que tàmbali woon nañ ci sax di ci wax. am na ñoo xamante ni looloo tax ba ñu ñàkk seen poste. Mm-hmm. ndax ba léegi dañ leen di tere ngeen wax ci 2024 euh, ci candidature Macky Sall ndax dafay bokk am di bokk am déet. léegi yow nga bëgg ma ñàkk sama poste. nee nga am na ñoo xam ne loolu tax ñu yàq. kon dëggal na ne looloo tax ñu ñàkk seen poste. non xam nga pour euh, pour ñëw plus sérieusement euh, bu fekkee ni mbiru sous région bi ngay wax suñu ay voisins nañ sama posture tey man permettre ma may wax euh, ouvertement li nga xamante ne ni moom laa xalaat man en tant que nénatal ci ci ci dëkk yooyu nga xamante ni moo ñu wër lu dul ñaanal leen jàmm ah introduction la léegi bu Sénégal bi moo la ñor euh, man dama am li nga xamante ni moom lañuy wax discipline de parti te ku nekk dégg ngeen suñu parti ñun waxuñu ci euh, mbiru élection waxuñu ci mbiru candidature li ñu wax mooy liggéey réew mi suñu mandat bi ñu nekk ñu eggali ko ci jàmm si population bi li ñu sas ñu def ko waaye bu dee nag dañ laa yóbbante wala ñu yónni la pour nga wax ma wax ñu dàq ma sama sama place <laughs> bi nga ma wax waaye kan moom ma yóbbante déedéet soo <laughs> damay tooñ c'est une façon de parler mais euh, vraiment loolu li si suñu parti wax moom laa ci wax pour le moment nekk suñu suñu suñu priorité nekkul ci suñu discours euh, lii suñu discours mooy mandat mi nga xam ne moom lañ jox président Macky ñu jàppale ko mu eggali ko ak des résultats positifs yoo xamante ne ni moom lay présenté Sénégal yi te ñi ngi ci yoon bi. baax na ñu lay présenté ni bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo sos APR Moustapha Cissé loo tamit daanaka cër boobu lay wax jégg nañ ko boobu ba léegi coow bi ak euh, li ñu ne dañ koy génne ci parti bi wala génn nañ kook yooyu yëpp yow lan moo ciy sa gis-gis ndax jàppoo ni xañ na mu amoon na neneen nu ngeen munoon def xaj na waxtaan ba ngeen bañ a egsi fii naka nga ko jàngatee loolu lépp. yaa ngi naan discipline de parti dafa am effectivement waaye tamit euh, solidarité tam dafa am wala. waaw euh, xam nga politique moom li ñuy wax rek toujours addition moo ci gën soustraction benn membre boo ñàkk rek jàppal ni du lu la neex te jàpp naa ni parti bi conseil de discipline bi muy jël décision boobu ña fa nekk xam naa leen de sorte que euh, liñ ci li ñu jël comme décision dara neexu leen ci. mais parfois xëy na nit dina dem fa nga xamante ne nii foofu nañuy toll ci parti ne serait-ce que pour donner l'exemple aux autres euh, yenn décisions yi day ñëw Moustapha Cissé Lo ku nekk xam na mérite am ci parti bi ku ne xam na lu mu liggéey ci parti bi également mais parti la nañu wax lu ñu bokk la jàpp naa ne bu kon bu doon kenn nit rek moo ko moom xëy na kenn nit ki mën na nangul moromam li nga xamante ne ni moom la def comme erreur wala moom la def comme euh, comme mbir boo xamante ni c'est inacceptable mais lu ñëpp bokk la lu ñëpp bokk nag dañ koy waxtaanee décision yi muy doon ay décision yu unanime lay doon parti bi jël na décision boobu mais euh, politique moom seules les montagnes ne se retrouvent pas moom nañuy wax souvent politique aussi noon noon noonu nañ ci waxee euh, mën na am bu ñu demee ba ci biir Moustapha Cissé Lo loolu nañuy ñaan en tout cas parti bi partem la yàgg na ci du ñu bu ñu sañoon kenn du dem mais le parti a voulu donner l'exemple aux autres pour que euh, yenn dérive yi bañ a am ah du du man euh, waaw moom lu nekk dafay xew lu nekk nit ñi dañuy bàyyante di àndandoo parce que li ñuy wax euh, du du diine du du loo xamante ni nii nit ñi dañuy ci taabu ni nangam du dootul amati voilà donc mën nañu ànd mën nañu ànd tey mën nañu bàyyi mën nañu mën nañu bàyyante tey comme tout comme le contraire mën na am te ñun lu ñuy ñaan mooy suñu benn membre bañ a quitter parti bi mais lu ñuy ñaan également mooy membre yëpp demee li nga xamante ni mooy discipline de parti moom la fi parti bi teg très bien léegi meneen mbir bal ma bal ma Marie Cissé euh, su ma juumul su ma juumee nga nga jooyandi ma mm-hmm. géejawaay nga féete et particulièrement Golfe Sud mm-hmm. ñoo ngi jëm ci local mm-hmm. sa xel mi ngi ci doon maire bu Golfe Sud waaw xam nga Géejawaay nag euh, bokk na ci département yi nga xamante ni Benno Bokk Yaakaar dafa dundu réalité la fa ñu am benn coalition boo xamante ni day dem ci li nga xamante ni mooy organisation dañu am organisation bu mag euh, autour de notre coordonnateur départemental muy monsieur le maire Aliou Sall euh, lu ñuy def rek dañ koy décider ndoo ensemble kon ñun ci loolu nañuy dem amul pour le moment amul candidature amul dara les gens travaillent bu ñu demee ba ca digg ba nag ku ci nekk décision bay am parti bu moo koy kii man candidat wu lenn rek laa liggéey li nga xamante ni président Macky moom la ma jox ma terminer sama mission fu ma teg fu ma tegul bëgguma ko